reniement mais yow nooy tuddee l'accolade entre Mimi Touré et Sonko. c'est une haute paire de manches. loolu boo waay bu ma paire de manches bu ma paire bu de manches. bu ma paire de manches. bàyyi ma am de candidat potentiel. Ah, may leen ko. may ma rek may ma may ma ah, may boo bëggee bokk suñu candidat. da ngay ñëw bokk suñu parti ak suñu coalition. dafa bu waree nekk candidat il voilà. n'est pas candidat du président de la République moo nekk candidat c'est un président sortant il faut être bien précis dans les mots ouais. le président sortant mooy nekk candidat mais c'est pas le président de la République absolument donc moom bu taxawee naan candidat la bay ma rek non non non c'est sémiologique donc man déglu ma rek waaw man man boo ma mayee rek ma terminé. bu ma dagg bàyyi mais bàyyi leen ki ngeen di sotti yéen tamit. terminé la rek nag ngeen bàyyi si tànk bi man vraiment. non non moom mooy argument man sama c'est une phrase ah. avant cinq heures célibataire ñu may la tàkkusaan célibataire nga après. non non non waaw waaw même ma ñëw waaw même ma ñëw. terminé rapidement. non man je termine je termine pour dire que. moi je tiens pas rigueur aux hommes politiques d'avoir des positions qui évoluent kii nekkoon na PDS. Macky Sall nekkoon na PDS. du tey créé nañ seen parti. Abdoulaye Wade nekkuloon parti socialiste. est-ce que demul créer parti mais mais keneen noonu keneen noonu. xool l'évolution dans les positions avait dit qu'il était anti-système. waaw voilà d'accord waaw léegi nag ma joxe un exemple. <laughs> un exemple sur le wax waxet qui est devenu un sport national mooy lan chez les hommes politiques. wax waxeet c'est une position qui évolue kon nag boo jëlee ku mel ni son ko ak la mu waxanteeg Mimi Touré ci campagne électorale bi demal wuy ji euh, Adji Sarr demal jàngi anglais temps d'autres pic ñu accoladante loo xam ne Sénégal kenn mosu koo xalaat Guy Marius Sagna toog ci wetu Mimi Touré kon nag nañu bàyyi homme politique yi man je ne tiens pas rigueur à Mimi Touré am position boobu ah waxuma ko parce que dama koy critiquer déedéet dama koy wax pour rappeler ne ñoom ku ci nekk am nga droit nga am position boo xam ne moo la arrangé maintenant à partir de ce moment à partir de ce moment te te te dinaa terminer fenn dinaa terminer fenn mhm. gis nga Ousmane Sonko je lui souhaite qu'il soit président mais il sera le président de la République le plus endetté du Sénégal politiquement s'entend merci mais mais mais Mansour li muy wax aussi c'est important. mënuloo comparer les actes de mimicure de Ousmane Sonko et de Macky Sall. charge charge yi du du du terminer ah, euh, Ablaye Ablaye Sow. quand quand le pour dire que demain ce sera chômage et paix Ousmane Sonko bu ko waxee kenn du ko c'est pas la Sall quand il parle de candidature c'est le candidat à la candidature c'est pas le euh, euh, président de la République Roch Martí Caboré il a dit carrément fii kenn mënu def ñaari mandat yu kenn mënu fi def. bien sûr plus de deux mais mais les deux mandats de cinq ans entrent en vigueur. mais wax cinq ans. d'accord quand est-ce que les deux mandats de cinq ans entrent en vigueur xam nga la taxaw wax ko. jàmmalaay la taxaw sama wetu kër. mu ne Abdoulaye Wade julli it. non na ko waxee ñaari kabar la. kabar bu njëkk bi na ko waxee Makka. kabar bu njëkk bi juróom-ñaari. waaw mais s'il vous plaît. juróom-ñaari kabar la. mais c'est son avis. mu ne rakk ñaareel bi juróomi kabar la. la parole de Macky Sall n'est pas au-dessus de la constitution. na Abdoulaye Wade sëlmal. la parole de Macky Sall n'est pas au-dessus de la constitution. aujourd'hui cette leçon là ça s'applique à lui. d'accord la parole de Macky Sall n'est pas au-dessus de la Constitution. tous les gens qui avaient couvert cette manifestation. mooy bu la cérémonie d'investiture du président de la République ak Diamalaye. Mhm. Mhm. décembre 2011. Mhm. loolu fii la ko waxee. avant le nee na Abdoulaye Wade def na fukki at. Ah, du benn cette comparaison elle ne tient pas. Ah, non elle ne tient pas. elle tient. elle ne tient pas. avant le soleil foo doon liggéey. non non c'est pas oui. je a terminer très rapidement. ça a personnel. c'est pas personnel. non non non il faut qu'on termine. dama am lu ma la bëgg a expliquer rek. non allez non ne personnalisez pas le débat s'il vous plaît. non li ma doon liggéey journal boobu dafa tëj. Ah, non tëj bi du amul solo déedéet waxuma waxuma foofu de. waaw waxuma ci affaire non déedéet non waxal. je veux dire que. Ah. je veux dire que li nga bëgg. munoo fee layal président Macky Sall. waaw lu ma nga naan layal lu ma dox di ko layal. si munoo ko fi layal. mais ki ko war a layal ak ki toog déglu ma ñun suñu principe la ñuy wax. non suñu principe la ñuy wax. monsieur Diouf ça c'est pas un bon principe. c'est le président Macky Sall qui a écrit ça le Sénégal au cœur et il l'a documenté. Mansour il dit maa ngi ñëw ci yéen. sa parole n'est pas au-dessus de la constitution. di dagaan ci yéen. sa parole n'est pas au-dessus de la constitution. candidat bi je suis a dit je suis désolé ça la parole non non non la parole fut-elle la celle du président la il a cristallisé l'ensemble des luttes qui étaient fragmentées ku wax loolu rek nga naan ay défend ay personne ne il a cristallisé e aujourd'hui il est devenu président de la non est-ce que alors, ans après le Sénégal mérite. mais il a le droit il a le droit. si les textes lui permettent de se présenter. alors merci le problème pourquoi vous refusez il faut qu'on évolue. aucun qu'on évolue. il faut qu'on évolue. président Macky Sall moom. wax na ko fépp. wax na ko fépp waaw mais sama fàtte benn affaire. du moom mooy wax. non non non maa ñëw c'est l'explication. mais qui a le dernier nañ ko mais mag président de la République. le président de la que soit président de la République. actuel ou futur. merci. il n'est pas l'interprète légitime de la Constitution. merci beaucoup am nga droit na ne man bokk naa wala bokk